Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ngi war a jël tey suñu fukkeelu aaya ak ñaar ci suuratu saba wa li suleymaan arriixa guduwuha shahr di sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgalaat ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam bégal ñu ca ci bégal yu bari yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko ñu ngi profité it di ñaanalaale mboolem ñi nga xam ne nii ñoo koy déglu en direct ak fu ñu mën a nekk ak mboolem ñi nga xam ni dañ koy nar a dégluwaat gannaaw ba ak ñi nga xam ne it ñoo dox suñu diggante ak ñoom ba loole di jot ca ñoom ngi ñaanal it kenn ci suñu magu jàkka ji dafa feebar yal na ko yàlla saafara te delloo su ko ci mbooloo mi ci jàmm kon tey mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Shaaban muy baraxlu ci 1442 ca gàddaayu gu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam muy tambeeg le 31 décembre le 31 mars ci 2021 mi ngi noonu incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبارم سبحانه وتعالى مني ولسليمان الريح suleymaan it day tàggatoloon nañ ko ngelaw la xuduwuha shahr xëy bam daan xëy dana nekk diirub doxu weer wa rawaaxuha shahr ngontam doxu weer wa asalnaa lahu ayn alqitr ballal nañ ñeel ko lii nga xam ne nii moom mooy sayaanu xanjar wa min al jinni noonu lañ ko tàggatale jinne ya man yaamalu bayna yadayhi bi izni ñuy liggéey ci kanamam ci ndigalam aw bi izni rabbihi man yaamalu bayna yadayhi bi izni rabbihi ñuy liggéey ci kanamam ci ndigalu boroomam wa man yaziq minhum an amrina képp koo xam ne jeng na ci ñoom ci suñuy mbir day nuziquhu min azabi sair dañ ko mosal ci mbëgalum sair mi ngi noonu muy luy tàkk jëm kaw yaamaluuna lahu ma yashaau ñi ngi doon liggéeyal suleymaan lu ko soob min mahaarib ca taax yu kawe ya wa tamasil ak ca istatuya wa jiifaanil kal jawaab ak la nga xamee ne nii moom mooy jiifaan mooy la nga xam ne nii yu ñuy lekke la xalem ndakaaru ab aset la xam waaye boo demoon ci àll bi xar lañ koy wax am na sax ñoo xam ne njafaan lañ koy tudde muy bagaan gu mag gu ñuy yàq amma lañ ca doon defal Suleymaan borom bi mu nekkal jawaab dafa mel ni la nga xam ne nii moom mooy ay xur yu ndaw yoo xame ne nii ndax yaatu gam yaatu woon wa quduri rasiya noonu lañ ko defale woon it ay kaddir yoo xame ne dafa sax kenn du ko déplacé suñu borom teg ca nag ne i'malu ala daawuda shukra jëf leen yéen jabootug daawuda muy ak cant wa qalilu min ibadiya shakur doonte ne lu néew ci samay jaam ñoo nekk ay santkat yu sax ca sant ga fa lamma qadayna alayhi almawt bañ demee ba atte jëmi ci moom lii di ak dee ma dallahum ala mawtihi dara tegte du leen ca deewuk suleymaan illa daabatul ard xanaa lu dul lay dox ca suuf te mooy max ga taakulu min saata mu ñëw di lekk la nga xam ne nii mooy yat wa mu sukkandiku woon falamma xarra ba suleymaan daanoo nag tabayyanatil jinn ca lay leer ñeel jinne ya allaw kaanu yaalamuuna alxayb na ñoom de bu ñu xamoon kumpa maa labisu fi alazaabi almuhin doowuñu woon sax ci mbugal mu leen di toroxal mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujj daje ñu ngi doon daje ci yonent yàlla daawud alayhi salaam suñu borom yàlla wax nu wax ñu ni moo ko mayoon tàggatal ko montagne yi tàggatal ko picc yi tàggatal ko weñ mu doon jëfandikoo weñ ni ngay jëfandikoo ban mu nooy ci ay loxoom suñu borom na ko liggéey ci saabixaat muy mbubbu koŋ yoo xam ni saabixaat lay doon mooy day mat sëkk ca nga defar ko defan bu rafet loole soo demee ci yeneen ayat borom bi wax ne yeneen ngëneel yu bari yum jox daawuda alayhi salaam suñu borom bokk na ci lam defal daawuda may ko doom joo xam ne buur la yonenti la mi ngi noonu wa hëb naa li daawuda suleymaan gis ngeen may ko doom ji ñuy wax suleymaan suleymaan moomu suñu borom yàlla def ko yonent may ko xam-xam bu raw bu baayam xam fa fahamnaha suleyman gannaaw ba it suñu borom yàlla daa di koy defal ay ngëneel bokk na ci ngëneel yooyu da ko tàggatal lii di ngelaw jox ko ordre mu koy commandé nu mu ko neexee suleyman bu mosaan di tukki am na tappi boo xam ne bu yaatu boo xam ne nii defaral nañ ko ko ca lay ñëw yéeg toog mook ña nga xam ne ñoom lay àndal jox ordre ngelaw li rek ngelaw li riddi yëkkati ci tappi bi gaa yi loolu lu mu leen di fàttali du may avion mi ngi noonu ca loolu it mooy li ñu nar a jàng ci kanam suñu borom mu ne max xamal ne jinne yi suñu borom yónni woon na la nga xam ne mooy ab baaxoñ mu xamal doomu aadama nu muy suule waaye mbokk da ngay xool découverte scientifique yu bari ñi ngi koy gisee ci bàyyuma yi da ngay gis lu ci bari architecte yi architecte yu jëkk yi ñu ngi inspiré woo ci jargon yi ni ñuy defare ak yamb yi ni ñuy defare seen kër yi ila axiri ba xatta avion boobu yéen xale yi xam ngeen dañ naan avion mooy appareil volant imitant l'oiseau naturel mu ngi noonu te mooy ñi doon xalaat avion yépp ñi ngi koy xoole ci picc yi xatta avion yi gën a sophistiqué décollage atterrissage ak yépp gars yi ñi ngi ko xoole ci yenn picc yi waaye Souleymane alayhi salaam moom avion ba soxlawul woon kérosène soxlawul moteur soxlawul dara ordre rek lay jox ngelaw li ñëw yëkkati ko ngelaw li bu ko yëkkatee dañ daan dox seen jamono pendant un mois nga xam ne mi ngi daan toll à peine ci six cent kilomètres te doomu aadama daan déplacé wu pendant un mois ngelaw li moom am xëy la koy def bu jant bi fenkee ba mu jox ko ordre balaa une heure ngelaw bi yóbbu na ko six cent kilomètres gannaaw ba ngoon jotee balaa timis sa jot ngelaw bi yóbbu war na ko six cent kilomètres muy mille deux cent kilomètres par jour Souleymane daana ko déplacé wu ci kàttanu yàlla loolu nekkul xiiwal allahuma nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñun ñi mu waxoon ne dinaa leen woon samay kawtiif ba ngeen xam li ma wax sama téere bi yépp dëgg la jox nañu xéewal goo xam ne nii moo gën a gaaw goog Suleymaan ga mi ngi noonu donte ne gu Suleymaan ga kawtéef la mu'jize la ndax li ma leen wax aajowul moteur aajowul dara waaye tey yàlla may na doomu aadama bi mu ko tàggale tee li nekk kaw asamaan ak suuf ñu mën a defar avion boo xam ne ñun waa jàkk jépp xaj nañ ci di xam ngeen loolu mi ngi noonu ñun waa jàkk jépp xaj nañ ak suñu bagage bu départ ak ñun la ngelawlu Suleymaan doon def moom 30 minutes la koy def 30 minutes tey jii am na avion yoo xam ne mille deux cent kilomètres par jour mën nañ ko def ci lu gën néew sax trente minutes avion de ligne ñooy def ay neuf cent kilomètres waaye tey scientifique yi defar nañ ay avion de pointe yoo xam ne daañu dem ba onze mille kilomètres par heure gis ngeen loolee kon mbokk xéewal goo xam ne suñu borom defal na ko muy benn borom bi subhanahu wa taala booleel Suleymaan it ni moom moo ko may benn déeg bu mu ko génneel boo xam ni lépp xànjar la baayam weñ la ko tàggataloon daawuda bu téye weñ aajowul safara moo koy manipuler lu mu ko neex defal lu ko neex suleymaan déegub xànjar jinne yi dañuy jël rek di tànq di defar di tànq di defar daan ko defaral lu ko neex ci ay taax yu mag xam ngeen say say yahud yi ba nii boo déggee ñu ne dañoo bëgg a toj masjidul aqsa nee nañ temple Souleymane mi ngi ci suufu masjidul aqsa gis ngeen dañ ko doon defal lu ko neex ci ay taax maharib dañ ko defal ay statue loolee araamagul woon ci seen sharia wante ne am na mu fassiru ne yoo xam ne dañu naan statue ya ay garab laag ay yeneen ak yeneen waaye xatta bu doon yu am ruux araamagul woon seen sharia islam nag bi mu ñëwee da koo araamal loolu moo tax ba mbokk jullit du nataal lenn loo xamee ni nii dafay am ruux di ko taxawal muy jëmm loolee mboore mi boroom xam-xam dëppoo nañ ci loolu bu dee dessin rek sans mu am jëmm tamit la ëpp ci boroom xam-xam dañ ne xaraam na jullit di def loolee su ko defee nga la way bu dee dessinateur nga bu dee ne artiste nga dessin loo xam ne amul jëmm yettal loo xam ne amul jëmmug ruux loolee ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala nee na jinne yi doon nañ ko defaral ba tey la nga xamee ni nii moom mooy ay njafaan yu mag bagaan yu mag yoo xam ne nii daanika dafay mel ni genre ab diig bu ndaw wala kur bu ndaw mi ngi noonu ci seeni wax ñoom boo demee ci tëri israélien ya ñu ne bool bu nekk lu jege mille personnes daan nañ ca toog donte yooyu seeni wax la kaddir yi ñu doon defar kenn daawu ko déplacé réyoon na réyaay boo xam ni fiñ ko defaree rek fa la ñuy toggee loolu day woon Souleymane la ko wóoroon ci mbooloo bari na mi ngi noonu la ko wóoroon ci mbooloo bari na mu yoroon nguur goo xam ne nii nguur gu dëgër la xatta baayam avant borom bi mën a shadat naa lahu mulk bàyyam daawuda suñu borom mu ne dëgëral naa nguuram ga muy nguur gu sax gu amul kenn koo ko contesté suñu borom mu ne jinne yi ñu ngi doon liggéey ci ordre am ci ordre seen borom képp ku ci jéng ma laa di koy lakk lakk googee borom xam-xam yi ñii ne nañu allaaxira la ko yàlla di lakk donte ne am na ñoo xam ne déedéet ci saasi bépp jinne bu génn ordre Souleymane daal di takk ci saasi gis ngeen zuqhu min azabi sair loolee kon la borom bi subhanahu wa taala wax ca jaamam boobe léegi nag bi mu tàggatalee daawud lam ko tàggatal tàggatal suleyman lam ko tàggatal mu ne ey yéen njabootug daawud ngallawaay jëf leen lu baax jëf leen ak cant mbokk julit xamal ne doomu aadama bi bépp jaamu yàlla sant yàlla la de manière générale jaamu gépp sant la mu am nag sant particulier ci xéewal particulier xéewal ga la yàlla defal da nga caa war a sant yàlla alal la xam-xam la nguur la wér-gu-yaram la lu mu mën a doon nga xam ne su dund yépp sant la war a doon suñu borom nag mu ne lu néew samay jaam ñooy nekk ay cantaakat yoo xam ne dañuy sax di ma sant donte ne mbokk ak sant interprétation yi am na ku nekk ni mu ko déggee am na koo xam ne ni mu ko déggee mooy ne jël di togg lu neex di naan lu neex di jox nit ñi di jaxasoo góor ak jigéen mbokk loolu suñuy wax la waaye sant jaamu yàlla la jaamu yàlla yàlla koy jàngale sant mooy nga yëg ne xéewal yépp ci yàlla la jógee muy benn sant mooy nga feeñal sa làmmiñ sant yàlla mbokk julit ñi sant ñu muhammad sant ñu abubakar sant ñu usman alhamdulillah yàlla la ñuy sant gis ngeen alhamdulillah gannaaw ba it xéewal la nga delloo ko fa neex yàlla ñett yi mooy mat cant doog a mat bu matul doo loolee nekkul luy mat moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam da daan taxaw guddi di naafila ba tànkam ya xar di jooy bay tooyal fa muy sujuute suñu yaay Aïcha na ko ay yëmu yàlla yónni yàlla baal na la la nga mas a def yëpp ak la nga nar a def yëpp mu ne ko afala akuna abdan shakura su ma yàlla defalee lu mu deful kenn ndax du ma ko jéem a defal lu ko kenn defalul mi ngi noonu mbokk yonent bi salaa sallam mi ngi noonu da doon jéem a raw ñëpp te it moo rawoon ñëpp saxaaba yëpp ko seedeel naa fi lu guddeem kenn mënu kenn mësu ko sàmm sa dab kooram nam ko daan defee léeg-léeg di def alwisaal tegale ay fan loolu da ko doon tëri nit ñi sax ndax moom lam ca man xam na ne ñoom mënuñu ko nam nekk woon azkar zikrullah kenn dabu ko ci woon nam tabee woon sallallahu alayhi wa sallam mujjug dundam alal di ko julle fu nekk bi muy dee mi ngi bàyyi bor benn pepp bu mu leboon ngir waa ko mën ci dunde kenn mënu koon dab ci ci lenn luy jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam afala akuna abdan shakura borom bi nag nee na lu néew samay jaam ñoomay sant borom bi subhanahu wa taala bi mu dogalee suleyman war a far booba mi ngi commandé jinne yi mi ngi commandé nit ñi dafa xamal nit ñi ne nañ ko defar nañ am benn cabine buñ ko defaral cabine en verre Souleymane na leen xamal leen nag dana faatu waaye bu leen ci wax dara bàyyi leen ma foofu Souleymane dugg ci cabine bi sukkandiku ci yet bi jàkkaarlu jinne yi yàlla dogal mu faatu jinne yi bu ñu xëyee ñu ngi ci toolu Souleymane bu ñu gontee ñu ngi ci liggéeyu Souleymane di liggéey rek guddeeg bëccëg liggéey rek guddeeg bëccëg Souleymane moom dee na bu yàgg gis ngeen ñoom xamuñu ci dara ba suñu borom yónni benn max termite mu ñëw lekk yat bi bi mu lekkee yat bi suleyman daanu jinni yi ni bisimilah jàmm kii dee na bu yàgg di doog a tasaaroo gis ngeen borom bi subhanahu wa taala it yonente bi alayhi salaam nee na suuf du lekk jëmmi yonent suuf du lekk jëmmi yonent looloo tax max gi lekk na bant bi waaye suleyman fi mu taxaw mi ngi fi taxaw loolu borom bi nag ni gis ngeen misaal lañ leen doon wan ni jinni yi bu ñu xamoon kumpa daawuñu sax ci mbugal mu tar mi su ko defee mbokk jinne xamul kumpa léeg-léeg bu xaabe bi nekk ñoom en relation di wax leen loo jàpp ne kumpa la dañuy ñëw ñu ne Bilal Thiam ñëw laaj ko ah yow yaay Bilal Thiam yow day sa waajur am na temps de doom yow day nangam nangam nangam fekk jinne bi dëkk ak yow moom lay waxal rek mu jeex comme nit ni muy waxee nit gannaaw ba yàlla may na leen vitesse tey jii avant portable yi di xew nga xam ne muy jinne jamonoy tey gis ngeen avant portable yi di xew tey benn jinne mën na fur New York dellu si waat léegi wax ay xabaar yoo xamee ne nii waa dëkk bi pour ñu xamoon ko daañ xaar ay weer doog koo xam jinne moom indi ko léegi te loolu it sax na ci alquran bii nga xamee ne nii Souleymane nee na koy dem jëlali ma trône ren bi Saba ca Yemen benn jinne moo jóg na ko léegi bala ngaa jóg fi ma indi ko léegi gis ngeen loolee kon mbokk jinne xamul kumpa kumpa yàlla ko xam mu bokk ci bakkaar yi gën a garaaw nga sol sa dàll jëm ci kenn ci jaamu yàlla yi ngiree mu waxal la sa avenir loolee mbokk ci bakkaar yi gën a garaaw la yal na yàlla musal ñu ci mi ngi noonu Cheikh Ousmane
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين بارك الله فيكم سني برمني ولقد كان لسبأ في مسكنهم آية دق نعم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية نكون دي ca dëgg ñeel waa saba ca yaman seen dëkkuwaay ba kaaw téefa nga te woon jannataani an yaminin wa shimal ñaari jardin ca ndeyjoor ak ca càmmoon kulu min rizqi rabbikum washkuru la lekk leen ci seen wërsëgu boroom te ngeen sant ko baldatun tayyiba dëkk bu teey wa rabbun ghafuur ak buur boo xam ni kuy sax di jéggalale fa aradu ñu daal di dummooyu fa arsalna alayhim sayla alarim ñu daal di yónni ca ñoom la nga xam ne ni mooy waluk mooy inondation ba nga xam ne ni dafa jóge ci seen barrage bañ defoon wa baddalnahum bi jannatayhim ñu soppil leen ca seen ñaari jardin ya jannatayni zawata ukulin xamt ñaari jardin yoo xam ni nekk nañ goog lekk goo xam ne gu wex la wa aslin ak lenn ci daqaar wa cheyin min sidrin qalil ak lenn ci siddéem lu néew zalika jazaynahum bima kafaru loolu day mi ngi noonu fay nañ leen ko ca lañ weddi woon wahal nujazi illa alkafuur ama ndax ñun daañ fayanteeg lu dul aji weddikat wa ja'alna baynahum wa bayna alqura allati barakna fiha def nañu seen diggante dëkk yi nga xam ne barkeel nañ ko quran zahira ay dëkk yoo xam ne yu feeñ lañu yu ñuy gis wa qaddarna fiha sayr ñu daal di nattale ci diggante ya lii di dox ba siiroo fiha layaaliya wa ayaaman aminin dox leen fa ci ay bëccëg ak ay guddi ngeen ànd ci loo xame ne nii ak kóolute la mi ngi noonu mbokk alxuraan ji suñu boroom nee na def naa ci bépp misaal mu def ko it misaal yu safante ko masaani wax nañu benn mbooloo wala benn famille muy daawuda alayhi salaam suleymaan alayhi salaam ak ngóor ga ñu yoroon tagg leen ci sant ga ñu sant xéewali borom bi jalla waala ñu nar a tedd àdduna tedd alaxira mu wax ñu ñeneen ci ay jaamam loolu mi ngi amoon fii ci yemen moo am benn jamono seen dëkk ba suñu borom yàlla naatal dëkk bi amoon nañu ay xur yu jëm ca dëkk ba taw yi dañ daan ñëw bu bari ñu fexe woon ba defar benn barrage boo xam ne day bloqué ndoxu taw bi heure boo xamee ni nii nawet bi jeex na ba tawatul am na ay fenêtre yu ñu ko defaloon ñu ne ñetti fenêtre la suñu ubbee ba ca kaw ndox mi commencé ñëw ñu arrosé quelques mois bu ndox ma wàccee ñu ubbi beneen bi bala ñu ubbi troisième ba daanaka nawet day ñëwaat loolu taxoon na ba dëkk bi naat côté ndeyjoor boo xoolee jardin yaa ngi ne boy côté càmmooñ jardin yaa ngi ne boy suñu borom boole ci def ko baldatan tayyiba amuñu gunóor amuñu soccet amuñu lenn lu yàq mbay dëkk bi naat air pur amul lenn lu koy jaxase loolee di xéewal gu rëy goo xam ne suñu borom yàlla def na ko ci ñoom borom bi ne leen kon mi ngi noonu jaamu leen ma man day lekk leen ci samay wërsëg ca jaamu ma ca man may jéggale ay bakkaar te loolu borom bi ne lekk leen samay wërsëg it mbokk julit du dëddu àdduna comme lenn ci ni ñuy tuddee ay sufiyanke di gisee doo lekk lu neex wala dë- déedéet mbokk suñu boroom mboolim xiiwal yi mu indi ci kaw suuf nee na qul lillazina hiya lillazina amanu julit ñee tax mu def ko fii ñu ngi noonu donc suñ càmb mu ne lekk pomme ak banaan ak orange loo mën a lekk lekkal suñu borom mu ne kulu min rizqi rabbikum problème bi rek mooy bul yàq kulu wa washrabu wala tusrifu bul yàq rek waaye lekk leen ca bu ngeen paree ngeen sant seen boroom te wóor ba ngoon ak kooram muñ tuyaaba dana ko am ki tim xiiwul yàlla lekk ba régg sant tuyaaba dana ko am mi ngi noonu rabbul xafuur borom bi nee nañu daal di dummooyu fa aradu mi ngi noonu seen maam ya jaamu woon nañ yàlla yàlla betti leen ak xéewalam naatal dëkk bi doom yi ñëw ah bew ci xéewal ya dummooyu njàngaleeg borom bi suñu borom yàlla indi ay nattoom waxoon na ko sunu baay aadama yaag sa njaboot dem leen ci kaw suuf ku may indil ku topp sama njub fala yadillu wala yashqa du réer du texee waaye wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka ku muy may sama waaraate danaa ko may dund gu xat ñu wane gannaaw suñu borom yàlla xëy bette leen la nga xamee ni nii moom mooy seen baarage boobu ñu defoon borom bi indi benn taw boo xamee ni nii jiggi na dayoo mu ñëw ëpp doole barrage ba mab barrage ba dugg ca seen kër ya yàq kër yépp dugg ca tool yi inondé yépp tool yépp yàqu kër yépp yàqu loolee suñu borom mu ne fay naa leen ko ngir weddi ak bew gan jafoon yow mi miin tuuti alquran da ngay gisoon suñu borom ba muy nettali ci suuratu nuun lu mel noonu la benn góor gu baax yor ab toolam heure bu demee ba war a góob woo miskin yépp ñu ñëw mu jël tool bi xaaj jël miskin yi jox leen ba mu dee doom doom yi ne waaye suñu bàyyi dafa dof nañ leen dem góob tool bi fexe leen nag bu ko benn miskin yëg bañ ca réunion ci guddi ba départ ci guddi gi la suñu borom yàlla indi ay mbiram taal tool ba yépp ñu ngi noonu bañ ñëwee xool gis ñu dara ñu ne xanaa dañoo riir kay waaye di du fii lu suñu toolu baay ba ñu xool xool xool ah moo la tool bi la de daa di lu la ñu jàmbat ko demee suratu nun da nga ko fa fekk suñu borom yàlla indi loolu nga xam ne def na ko borom bi nee na nii laa yàq jardin yépp ba nga xamee ne ba mbir ma ñiisee loo fa mën naan gis muy garab yu wexaat am na ñu ne arak la fa bay ak daqaar ak siddéem moo ko xam ngeen daqaar dañ koy soose waaye kenn du ko dundi am déet siddiim nit naka noonu di su ko dundee te borom bi nee na shay'un min sidr lenn ci siddéem boo la ci qalil mi ngi noonu mooy dina ne si dem sa bariwul ca xoox ya dara taxute loolu lan la ko yàlla fay mooy la nga xamee ni nii dañoo weddi borom bi nag ni ndax dana fayoonteeg lu dul koy weddi xéewal looloo tax nga la waaye yow doomu aadama li la yàlla defal ci xéewal sante ko yàlla sante ko yàlla sa làmmiñ bii na ci feeññi xéewal gi sant ci yàlla moytul bañ a gis xéewali borom bi rawatina yéen ndaw ñi dañuy gis benn intellectuel boo xam ne dana fayeeku sept cent mille huit cent mille pour moom c'est un pauvre déedéet santal yàlla yal na yàlla yërëm suma mbokk ba El Hadj Fadior Gueye bi ma leen di wax fii toujours nee na dafay wax ak sama benn xaritu cadre Senelec muy jàmbat mais noo boy xalul salaire yi nangam nangam bi mu waxee par mu ne ko mais est ce que yow xam nga ñun nous faisons partie des cinq pour cent les plus payés du Sénégal waa ji taxaw mu ñu mu ne ko non waxal un pour cent vraiment élage bu ñëpp doon xalaat comme yow comme jàmm dana am gis ngeen doomu aadama bi da ngay sant yàlla heure booy jàmbat xoolal ñaata nga tani su ko defee nga sant yàlla waaye sant yàlla ba ca làmmiñ it warul yem ci làmmiñ mboolem xiiwal yi la yàlla wërsëgal fexeel ba doo ko teg lu dul fa neex borom bi subhanahu wa taala amma boo weddee xiiwalu yàlla suñu borom yàlla dina ñëw ak mbiram imma ci àdduna wala imma ci alaxira hal nu jaazi ilal kafur mbokk suñu borom nee na waa saba dëkk ba la muy naat naat xam nga lu ci yàlla dollee mooy capital ya nekkoon ca Cham ñoom dañ daan dem di ci tukki suñu borom yàlla buñ jógee ci seen dëkk mu defal leen étape yoo xam ne tey boo xëyee ba ngoon jot nga war a sees da ngay daal di daje ab dëkk nga toog sees nga dem ba fa nga war a fanaan dajeeg dëkk noonu la yàlla tegali dëkk yi tegali dëkk yi ca mbokk xam leen ne yàlla ñu tasaare ci kaw suuf de yow mi yeewoon ndakaaru heure boo xëyee waxal alhamdulillahi ala ndakaaru yàlla ñu indi ndakaaru de soo demee Tamba ñi ngay jàmbat tàngoor la ci mënuñu faa jóge nga dem ki dugg ñeneen nga dem eskimo yi nekk ci biir glace ga nga dem ñu nekk ci kaw montagne à cinquante degré yu kaw yàlla moo tasaare doomu aadama yi boo demee dans les océans nga fekk ñoo xam ne ci ay île lañ dëkk pour génn fa problème la waaye mënuñu faa bañ a dëkk yàlla moo moo tasaare ku nekk fa nga neex wala zi zaraakum fil ard noonu it waa Cham ak digg Yemen suñu borom defal leen heure boo demee ba war a ngondal dajeeg dëkk boo waree fanaan dajeeg dëkk suñ borom mu ne qaddar naa fiha sayid boo léegit borom bi ne leen bu leen neexee dox leen guddi dox leen bëccëg doo dajeeg gaynde doo dajeeg till doo dajeeg dara lépp yàlla may leen jàmm moo gaa yi lu du xéewal ci kaw xéewale waaye teewul ñu daal di bew bew gañ bew mooy lan mooy kon ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jàngal ñu ko ñu ngi noonu
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من
jazakum allahu xayra suñu boroom subhanahu wa taala mu ne kon fa qaalu rabbana baid bayna asfaarina ñu ne eewaay yàlla soreel diggante suñuy tukki yeewaay wa zalamu anfusahum ñu daal di tooñ seen bakkan fa jaalnaahum ahadis ñu def leen lu ñuy waxtaane wa mazzaqnaahum kulla mumazzaq ñu daal di leen di tasaare gépp ak tasaare mi ngi noonu ma xoñe leen tasaare leen ci kaw suuf inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur nekk na ci loolu day ay kawtéef ñeel bépp muñ kot ak bépp sant kat walaqad saddaqa alayhim iblisu zanna moo ne day dëggal ne ci ñoom iblis njortu gam jortoon fattabauhu illa fariqan min almuminin ñu daal di koy topp lu dul benn kuréel ca mooy ña nga xam ne ñoo gëmën seen boroom wa ma kaana lahu alayhim min sultaan doonte ne nekkul woon di am ci ñoom benn lay illa li naalama man yuminu bil axira lu dul ñu xam ca ña nga xam ne dañoo gëm alaxira wa min man mi ngi noonu min man huwa minha fi shak ca ka nga xamee ne daa nekk di sikk sàkk ca alaxira jooje wa rabbuka ala kulli cheyin xafiz sa borom yàlla nag ci bépp mbir mooy ka koy wattu qul iduu allazina zaamtum min duni illah neel woo leen na ngeen joort gannaaw yàlla laa yamlikuuna misqaala zarratin ñoom day moomuñu lu toll ne zarra mooy la gën a néew ci sànqaleñ wala atum comme niñ koy waxee suñu jamono tey fi samawaati wala fi l ard na doon ci asamaan yi wala ci suuf wa ma lahum fihima min shirk ñeedu leen ca asamaan ak suuf benn bokkaale wa ma lahu minhum min zahir yàlla it ñeelu ko te ñooñee kenn koo xam ne moom lay dimbali ko mi ngi noonu mbokk waa saba suñu borom naatal na dëkk bi yombal na tukki jàmmi yu feeñ biir ak biti waaye ñu daal di bew ah waaye dëkk bi daal neexul ku bëgg a dem ah ca Cham uti marchandise ñëpp a bëgg ñëpp a mën a dem waaye yàlla na faagaagal dëkk yi nekk ci diggante bi waay ngiree lan ngiree borom doole yi rek ñooy am kattan di mën a tukki gis ngeen xam ngeen ne tey Sénégal yi fi mën a am kattan dem Hong Kong wala Dubai jënd ay conteneur indi mbokk loolu ñëpp mënuñu ko de nga noonu bu ñu waxee passe Hong Kong rek la muy jar kenn xamul lu mu doon am maa nag bu doon tene ne tey jii ku am vingt cinq mille francs sax mën na dem Hong Kong kon ñëpp dem Hong Kong léegi nag ñu ne daal ah waay yow commerce bi daal doxut daal bala doon gën a dox nag mooy yàlla dindi dëkk yu ndaw ndawaan yépp waaw ba nga xamee ne balaa kenn dem da ngay am yóbbal bu mag yóbbu am kattan bu mag suñu borom mën a xoolal rek daal di bew ba nga xamee ñu ne bew nañu suñu borom yàlla nee na dama leen a tasaare ak tasaare te mooy ba yàlla indi inondation mu yàq seen kër ya yàq seen tool ya amatuñu lu ñu lekk dañoo tasaaroo ñuy jëm gauche ñuy jëm ndeyjoor ñuy jëm feneen ñuy jëm feneen te loolu it bokk ci natt bu yàlla di nattoo ay jaam moo tax gaa yi gisoon ngeen dëkk bi mel ni Syrie ba fa bombardement yi amee ñu lay won des villes complètes yu ren am plus de ay cinq cent mille habitants tasaaroo nañu yaay di wax xamul fu doomam jaar jëkkër di wax xamul fu jabaram jaar xamoo dee na xamoo dem na xamoo nu mu mën a dem bokk loolu ci natt yi gën a tar la nekk yàlla nañ ci yàlla musal mazaq nahum kulla mu mazaq def leen loo xam ne génération yi ñëw seen gannaaw dañ leen doon waxtaane mooy la waa saba defoon loolee mbokk lañu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nekk li ca la nga xam ne nii jaar na fa ak ñooñee nga xam ne nii ñoom ñooy waa waa saba boobu borom bi nag bàyyi waa saba daa di dellu si ci doomu aadama yi mboole seen mu ne doomu aadama yi day iblis ba ko yàlla génnee ci ci yërmandeem daf na yàlla gis nga sa jaam yi la in axartani ila yawm alqiyama la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila soo ma bàyyee ak doomu aadama yi ñoom ñëpp danaa leen ngalaab yóbbu sawara lu dul lu néew mi ngi noonu feneen mu ne ko illaa ibadika minhumul muxlasin loolu yi ba ko iblis di wax da koo jortoon rek waaye ndekete yoo te far na am iblis lam jortoon am na réeral na la ëpp ci jaamu yàlla yi ca mbokk yonente bi alayhi salaam nee na yowmal qiyaama bu ñu fa demee day fekk ne junni bu mas a teg tànkam ci kaw suuf neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ya seytaane réeral na leen ci yoonu yàlla mi nga noonu mbokk loolu lu lu tiitlu la man ngaa wax ne tey jii kon un milliard d'habitants bu nekk un million ñoo ci rëcc neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions yépp ña nga nekk ci jabatug seytaan loolee mi ngi noonu du luy tiitlu yow élève loo brillant brillant yaa ngi jëm ci concours boo xam ne dañ ne kat mille candidats la un lañ ciy jël loo wóolu wóolu sa bopp ndax da nga nelaw nelaw yu daal déedéet looloo taxit boo bokk jullit del ragal mbugalum yàlla di yaakaar yërmandeem ba baa ngay mucc ci mbugal tàbb ci yërmandeem yàlla yàlla tàbbal ñu yërmandeem loole mi ngi noonu iblis dëggal na ci ñoom lam defoon waaye ndax yàlla daa joxoon pouvoir iblis ba ku ko neex bokkaale bokkaale loo ko ku ko neex naan loo ko sangara ku ko neex njaaloo loo ko borom bi ne déedéet amul woon ci ñoom benn kattan lu dul da doon woote rek nit ñi topp ko looloo tax demal suratu ibrahim suñu borom danañu nettali bu coow la bëree kii naan bokkun maag mbay diw kii naan bokkun maag mam diw ba yëpp ñëpp ne cheytaane cheytaane mu ne hey fala talumu ni lu mu anfusakum bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp dara nekkal foon illa an daawtukum fastajabtumu li damaa woote woon na ngeen wuy si ma waaw gars yi bu dee waa sayal naat dañ ne ñëw ne gars yi kaay leen soirée bi dix mille francs la ah yow ñoom dañoo woote rek yow ma jóge sa kër nag dem dugg ca ca soirée ba kon bu bul yedd kenn yeddal sa bopp looloo tax alhamdulilah cheytaane yàlla mayu ko kattan ci benn doomu aadama waaye nag dana taaral lépp lu yàlla araamal dana ñaawal lépp lu yàlla santaane ñu ngi noonu lu yàlla araamal rek seytaan dana ko tal la uzayyinanna lahum fil ard loolu la yàlla wax danaa leen taaral lépp loo araamal ci ñoom li nga digle it la aqudanna lahum siraataka almustaqim danaa fexe ba dox digganteeg ñu jaamu la borom bi mu ne amul woon ci ñoom benn kattan waaye man yàlla maa bëggoon a xam li naalama ay li nara yàlla gis gisu goo xam ne dana ci mën a sukkandiku ba atte ci maandute yàlla bu ko neexoon indi jaam yëpp ci kaw suuf xaat leen ña yeyoo àjjana xam na ko mu dugal leen ña yeyoo safara xaaj na ko mu dugal leen waaye képp ku muy dugal àjjana dalay dugal ci preuve mooy gëmoon nga jaamu nga kon sa paye ngi nii ñay dem sawara dañu nekk ci preuve gëmoon nga mooy weddi woon nga topp seytaane sa mbir mi ngi nii looloo tax borom bi ne li naalama man yumina bil axir mi man huwa minha fi shak ak ñi nga xam ne dañ caa sikk sàkk borom boobu nag ne mooy ka nga xam ne lépp moo koy wattu dara réeru ko ci liy am ci kaw asamaan ak liy am ci kaw suuf comme nañ ko jànge woon ci àllarba ji passé léegi nag yéen ñi yaakaar keneen ku dul yàlla woo leen jibril woo leen muhammad woo leen keneen ku dul ñoom ñooñu ngeen di woo ci duñu yàlla day moomuñu ci nguurug yàlla gi lu toll ni misqaala zarra mënuñoo indil kenn njëriñ mënuñoo dàqal kenn njëriñ ki gën ci jaamu yàlla yi teg tàngam ci kaw suuf sunu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam borom ñu ne ko qul waxal ko sa bopp qul laa amliku lakum darran wala rachada mi ngi noonu waxal la sa bopp ne leen qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastaksartu min al-khayri wa ma masaniya su su doonte ne xam naa dara ci kumpa xiiwal dinaa ko am ca lor du ma dal waaye mbokk déedéet ñooñu ngeen di wooce duñu yàlla benn moomuluñ leen indil leen njëriñ daqal leen lor muy benn ngo gannaaw ba amul lu ñu bokk ak yàlla mooy yàlla moo bind asamaan yi ñoom ñoo bind suuf wala ñoo bind weer wala ñoo déedéet amul lu ñu bokk ak yàlla ñetteel bi suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne xam leen ne it amul lenn lu yàlla di diminikoo ci ñoom kon yow mi naan yaakaar maa ngi yaakaar yàlla ak diw waa gars yi yaakaaral yàlla rek ndax yàlla la ñuy def soxlawu ci diw dimbali ko gis nga wam mi ngi noonu moo tax borom bi mu ne wa ma lahu minhum min zahir amu ci lenn ñoo xamee ni nii dana leen dimbali ko loolee tontu ya dana des waaye comme temps bi daf ñoo tënk ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla wàcces ci ñun suñuy ay xéewalam ci ñun àdduna ak alaxira yal nañu yàlla boole ci ñuy sant ay xéewalam yal nañu boole ci ñi koy jaam wuñ ko bokkale dara yal nañu musal ci pexey cheytaan musal ñu ci sawara ak lu ñu koy jegaleel yóbbu ñu àjjana ci ngëneelam ak girmandeem wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alhamdulillah xam na lu jiitu soxna si moom dafay laaj mu ne ndax julli ajjuma biñ doon xutba ci ajjuma ji passé ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ki xëy suba sangu ba set sol ay yéreem laal yu laal ay parfum dem ca jumaa ja ndax loolu day yóbbaale góor ak jigéen yépp déedéet mbokk loolu yóbbaalewul góor ak jigéen la ñuy jëkk a wax mooy àjjuma suñu borom nee na buñ ko noddalee bàyyi leen lépp ngeen dem julli ji boole ñu borom xam-xam xam nañ ne farata la boo xam ne ca góor ña la yem jigéen bu ko neexee ba ñu ñëw jumaa bu ñëwee ci jumaa ja nag dana am yool ba góor ñi am waaye na jigéen di demee jumaa it bokkul ak na góor di demee jumaa jigéen du dem jumaa di parfum wu jigéen du dem jumaa di tuwaaletu ci taar loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu yaay Aïcha radiyallahu anha daana wax ne jàpp naa de yonent ba bu fekkee woon li ñu fekk ñun dana tere jigéen ñi ñu dem juma comme te ñooñu mbokk mooy jigéeni sahaaba ya la Aysa doon wax waxul nag jigéeni Ndakaaru tey ala kulli xaal mbokk jigéen boo booy dem juma fexeel moytu di toilette takkaayu fexeel moytu di parfum wu yonent bi alayhi salaam daan wax ne bépp jigéen boo xam ne dafa parfum wu bu naree julli si gée na sax song ba parfum ba dañ ma doog a ñëw moo tax mu ne fal yaxruj na tafilaat bu ñuy dem nañ génn sans parfum loolu daal lañu war a wax donte ne ñi ngi ñaax bépp jigéen bu mën a dem juma nga dem juma ndax mboolem ngëneel yu ci yàlla di bindal góor soo fa demee da nga ko am wallahu subhanahu wa taala alam naam naam
man li ma lay laaj yombal xiyam est-ce que doomu aadama boobee jaamu yàlla boobee yàlla mën na ko may est-ce que mën na maqaama foofu ci yombal xiyam bu ko mën may mu ràmm ay waajur ay ñaari waajur ci ci noonee mu mën leen lim wala xam wala xamu gën leen
ala kulli xaal la chaque ne doomu aadama mën na gën ay waajuram loole amul benn sikk sàkkati loolu yowmal xiyaameet yàlla mën na laa terele nga ràmm say wayjur mbokku shafaa am na yowmal qiyaama yàlla moo koy jaarale ci loxoy ku ko neex ci ay jaamam loole yow yaakaaral yàlla boolele ca ñooñee yowmal qiyaama malaaka yi daañu ràmm yonent yi ràmm shuhadaa yu ràmm saalihiina yi ràmm loolu nag duñ ko yaakaar ci kenn ku dul yàlla amma gannaaw ba diggante way jur ak doom leneen dafa dox moo di ne way jur ak doom buñ dajee ci ngërëmal ngërëmal yàlla war a dem aljanna suñu borom day xool famille bu nekk ka gën a kawe daraja mu jël famille bi yépp boole leen ca walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alxaqna bihim zurriyatuhum ñoom ñëpp ñooy bokk fa ñu nekk ca fa gën a kawe loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam waaw mi waxa waaw xata akuna xata waaw waa ala kulli xaal Allah yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom dane ku juyoog yonente yàlla bi gannaaw ba ko njubug yonent yàlla ba ko njub ga leeralee daañ ko féetale fam féetale boppam gannaaw ba ñu tàbbal ko sawara xam nga ni lii muy sunna nga bàyyi fa sunna def loola neex gannaaw ba it yonente bi alayhi salaam ne ne kenn ci yéen balaa ngëmam mat bannee xam day topp li muy indi mbokk diine jëfe ko rek doyul diine da nga koy jëfe mu neex la loolee mi ngi noonu suñu borom mu ne yéefiri zalika bi annahum karihu ma anzala allah dañoo bañ la yàlla wàcce jullit da ngay kontaan ci ndigalu yàlla soo gisee jigéen ju muuru nga kontaan gis jeune bu bàyyi sikkimam nga kontaan gis ñu ndaw ñay dem ca jàkka ja nga kontaan lépp loo xam ne ni ak tuyaaba la da nga caa war a kontaan mu bokk ci mandargay naafiq ak faasiq mooy yàlla santaane dara mu naqari la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon naam waaw kon incha allah incha allah kon ñu ngi ñaan suñu borom yàlla dëppale ñu ak ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain